ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar nga rek ay coronavirus yi fu mu jëm ak bi gi Soleil kay coronavirus ma ngay wéy di jàngoro ji nga rek wax coronavirus gannaaw Italie ba mu jamono ji na ñi nga rek bi di wax consul général bi nga rek ci Italie bu Sénégal bi jàngoro ji nga rek coronavirus amul jàngoro ji di wax coronavirus donte na ñi nga rek egg ci yu jaxasoo laas yéen i kaay dañu xamal ne waaye nag jàngoro jii di coronavirus na nga xam ne noonu lay doxee gaaw na lool gannaaw ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer yoo xam ne rek jamono ji daal luñ ci mën di def na gaaw li coronavirus moo raw TGV maanaam daal na muy doxee ak tasaaroo ci àdduna bi gaaw na lool ba tax na kuréel gi nga xam ne rek moo di OMS ñi tiin moo di jàngoro ji nii nga xam ne rek noonu lay doxee mu dem ba wër àdduna bi réewum Sénégal ak ki jafe-jafe 24 heures yéen i kaay seenu bokkum di lu xamal ne kay njiitu réew mi Macky Sall yaas yaas ji nga xam ne rek la ñu nekkee maanaam daal nguurug Sénégal day xamale desa nañoo jekk desa nañoo taxaw ci nii nga xam ne rek noonu la ñu nekk kaay gi di dina xam ne ak lu mën a xew daal li nga xam ne rek nii ñoo nekkee ci nguur ki maanaam daal fast track nga xam ne rek moom ñoo nekkee ci nguuru Macky Sall gi ni ñuy doy na waar lool yii ne kaay gi duñu xamal ne tey ngeen def composé fanweer ak ñaar yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci nguuru Macky Sall gi di ay ministre jamono ji bu doon daal a waar daal gannaaw ba mu takkee jabaram ndekete ab sidokaa la takk moom sidokaa ba kay gannaaw ba gisee ko neexul dóor jëkkër yëpp ba damm loxo mu nekk nag lu doy neex dóor ba damm xam naa Arouna Cissé mu professeur Fallou Cissé moom de kenn du damm ngay dégg ay doq yu damm waaye madame def ku mu damm ah nañ ko wax na El Hadji Ousseynou Ndiaye